العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala at bu bees bi ñu dugg di atum jullit waaye di atum àddina bi yëpp waaye nag rawatina ñu askan ne ko jullit yi dala new fii lu dul jullit kon at mu bees mi lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nangul ko waaye di ñaan yàlla borom subhaanahu wa mu def ci réew mi jàmm mbas mi lëmbee réew mi yàlla ànd ak at mi dem at mu bees bi fi des yàlla def ci xéewal naataange sutura bi jaay sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu di leen nuyuwaat rek di leen ziyaarawaat di ñaanal yàlla suñu xalifa généraux yi Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla doon di guddal fanam noonu la ñuy nuyoo di ko ñaanale suñu baay ji suñu maam ji xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàlla dolli guddal fanam yàlla dolli ko jàmm yàlla dolli ko sàmm hadiisu Seydina Muhammad bi dégg na ko adduwaa silaaxul mu'miniin ñaan amul lu mu ñaan nag ci toolu yàlla ba deewee fi moo gën di ñaanee faneen ba deewee fi kon ñoo koy ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam daan naa dégg sama sëriñ bi sëriñ Abdou Aziz Amin mu ne bu leen xeeb ñaan ñaan amul lu mu kon nag bu ñu bëggee jël suñu bopp def ko ay nasaraan jàpp na bu dul comprimé wala bu dul vaccin la mbir mi fi jógee ndax nañ suñ bopp ndax bari na ay góor yàlla yoo xam ne feebar nañu ba seen mbokk génn ci ñoom ku ci mel ni sëñ Fallou am na ku mu ci jaaral ku ci mel ni Seydi am na ku mu ci jaaral ku ci mel ni Seydi Mouhamadou Mansour borom daara am na ku mu jaaral tant d'autres tant d'autres tant d'autres te ñooñu ñu ñaanal ba ñu wér naan ñu comprimé piqûre wuñu vacciné wuñu kenn sampul leen prévision waxuñu nag ni loolu amul waaye nag fa tabarakallah mbir dafay toll foo xam ni danga koy delloo war yàlla yàlla moom mooy faj mooy wéral kon dañuy ñaan borom subhanahu wa taala nit feebar na fi ba ay wokkab yaakaar yi dootul jóg ba jàppoon par dañ ko xee sëñ Fallou sëñ Fallou dugg oto daf ko xool rek nit feebar na fi mu indi ko Tiwaawan borom daara ji mu daw riir borom daara ji xool ko tàpp ko rek mu toog fu mu toog wér seen xarit maa am na benn tàlleen boo xam tànk bi dafa yàqu woon ba ñu wax ne mu ñëw ko Cheikh Seydi Hadji ko toog ci daara ji rek mu toog di ko xool tànk bi di gëm di gëm di la yore ñaan am na kon sëñ Muntaxa woote journée xasaay di ñaan nawet bi normal yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar mbas mi jóge fi dañ koy ñaanal moom yàlla yàlla gën a guddal fanam waaye di ñaanal tamit yàlla yàlla génne feebar bi ci bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk nag ci bisum Tamxarit wa tabarakallahu ñu di ko waajal waaye ñun Sénégal dañuy bàyyi farata de sunna soo xoolee leen sunna yi ngëneel yi la ñu gën a respecté farata yi wala Sénégal la plupart du ñu respecté tam xarit te ñu néew ñoo ci respecté wax jox lu yàlla moom ñu néew ñoo xarit bu jege koo ci laajoon tamit aslu bi du la ko wax waaw ñooy wuti cere fu dee ñoree fan nag saam yàpp yi togg reer waaye dafa nekk at boo xam at boo xam ne ci la yàlla di beesalaat mbir yi kenn ku ne fi nga war a dem kenn ku ne li nga war a am ak ku ñu ci war a faatu ci yàlla yàlla lay defar dossier yi kon at mi atum tiitaal la nga génn ci at bu bees a duggaat ci bees da war a jàngaat sa bopp at bi nga génn lan nga ci def ci lu bon ak at bi ngay dugg fexeel ba mu def loolu ci lu bon at bi nga génn li ma ci doon def ci lu baax ak at bi ma jëm lan laa ci war a yokk ci lu baax. waaye ñun fa tabaarakallaahu daanaka 31 décembre la ñu gën a yittewoo moom la gën a xam waaye at bi jeex la fa tabaarakallaahu at baa ngi dem tey ñoom ci juróom-ñetteelu fan ci weer wu jiitu ci at wi juróom-ñeenteelu fan ci weer wu jiitu ci at wi te suba di fukkeel fa tabaarakallaahu lislaam am na ci ndam waaye lislaam bi mu am na ci defet ay faral dégg ni ci la noox muccee ca gaalam ga ci la yent yàlla yusufa yunus ci la koy génnee ca jën ba yàlla euh, euh, ibrahima fa la muccee woon sa safara sa yent yàlla muusa fa la muccee woon sa géej yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu am na ko ci mën nañ ci fukk yoo xam ne islam am na si ndam waaye tamit fatabaarakallaahu mën mën nañ si wàññi fukk yoo xam ne islam am na si defe nga xam ne fu lu neex amee rek lu naqari amee na kon bu ko ñii di feetal rek ñii di ko jooy waaw nga xam ne àdduna moo demee noonu su ko ñii di feetee rek ñii ñoo koy jooy waaw ndax si la ñu reyoon Ousseynou ci la ñu reyoon Assane moo ko rey Yazid moo ko rey ibnu Muawiya te wax nañ ñu jullit la kon nañu fan la ñu àtte ku rey deretu rasulullah ngir la ngir pouvoir keroog bi Ali dem ñu rey Ali kan moo féetoon pouvoir bi Muawiya keroog Muawiya bu muy dem la jël pouvoir bi jox ko Yazid waaw ni ko lii nag seen borom ñoo ngi màgg bu ñu màggee delloo leen mbir mi moomoo ko dañ la ko dénk bu ñu màggee jaral la ko xale yi rafet am bayre day yoo xam say ñi lay wër am nañ si baax am na si ñu bon ñu bon nag ñoo ko conseillé ni ko xale yi bu ñu màggee fii kenn dootu la dégg waaw kenn dootu la faale ndax nit ñi bëgg na leen am nañ bayre te boobaa dafay ñaax sa pouvoir bi ñu ne lan laay def ñu ne ko rey rey leen amatul choix amatul pexe ñu ne ko rey leen te moom ngi leen di rey te te moom mi ngi leen di rey te moom du dee ci pouvoir bi kon pouvoir jarul dara waaw yenn saa ne seytaane dana la dugg ba ëpp la nga jàpp ne pouvoir dara la mais li ngay ngar ngar ngar fii nga koy baax kon li ngay ngar ngari na doon lu baax ala kulli xaalin lépp lu tax ngay def ci lu bon fii nga koy baax li sama sëriñ bi doon wax rek si mun daxaa baax sonn bon sonn kon baaxal muy sa njëriñ waaw comme boo baaxee som na soo bonee som kon baaxal muy sa njëriñ waaw kon doomu aadama lépp luy wut am ko ci ngërëmal borom bi subhaanahu ndax loo fi mën am fii nga koy wax waaw muy pouvoir muy xaalis muy oto moo xam muy jëkkër moo xam muy jabar ci lépp loo ko mën di amee na la sa ngor may waaw na la sa ngor jox Yazid ngi di ba mu faatoo léegi kañ la li taxul mu rey Assane ak Ousseynou bàyyiwu ko fi bàyyi ko te li suwaar lañ koy répété di ko répété waat te bu doonoon lu baax noonu lañ koy répété di ko répété waat ndax fu ñu waxee jigéen ñu baax ne Khadija fu ñu waxee jigéen ñu baax ne Aïcha waaye fu ñu waxee jigéen ñu bon ni jaxlatu fu ñu waxee jigéen ñu bon ni Umu Jamil fu ñu waxee góor gu bon ni Abu Jahl fu ñu waxee góor gu mën di abaa lahab kon baax rekk am njëriñ waaw kon def lu baax rekk am njëriñ bi ko gars yi conseillé loolu moom Yazid mu dem gis jaxratu bi nga xam ni moom mooy soxna Asan lu ko sa jëkkër ji laa bëgg nga reyal ma mu ne ko du def mu ne ko soo ko reyee naa la jox cinq cent milliards ci waxin naa la jox dix pareeru naa la jox jamaa naa la jox giléem naa la jox xar naa la jox bëy te dinaa la takk jaxle du tamit dem ñii posan la ñii déedéet butéel la jël dëbb ko dëbb dëbb dëbb dëbb dëbb dëbb dëbb dëbb dëbb ba mu mokk bi mu ko dëbbee ba mu mokk mu lay ko ba mu sew ñii ci cere la ko def ñii ci fond la ko def moo tax booy takk takkal jigéen ju am lislaam bu am iman boo fi takkee jigéen ju amul iman dalay rey ci biir kër gi te kenn du xam ne la rey waaw duggal fii ci Dakar kër goo dugg boroom kër ga dee na waaw ay dir rek ñoo fa nekk di yéeg ak wàcc rey leen seen jëkkër yi bu yàgg yàgg yàgg yàgg kon bu la yàlla nattoo ci taaru jigéen wala yàlla nattu la ci rafetam ak wala njoolaayam ak xeesaay dugg ci moom te amul imaanu billaahi gëmu la bëggu la dangaa xam nit booy bëgg da bëgg ku la bëgg bul xool ni taaru na rek njool na rafet na naa dugg ci moom ndax àdduna bi yàggul kon duggul ci loo xam ne boo ci amee meññante mu mën laa jëriñ waaw mu nekk doomu lislaam nekk doom bu yàlla gërëm waaw waaye boo fi xool jigéenu capitaliste naay am rek boo amul mu bàyyi la fi jaaxle la kon xoolal bi yéen waxee ni xoolal ku am ngëm nga jël ko xam ne bàyyi na xel yàlla xam ne bis bi bis bi yàlla sàkk balaa bis bi jeex mën na wuyu ji borom subhaanahu wa mu jël jax na fay ko ñii ni déeri ci poson la ko ci ñii ni poson la ci def ñii la dëbb ba mu noy népp lay ko ba mu sew def ko ci fonde bi jox seen na asan mu lekk bi asan lekkee ci la sentir ni dañ ko posone seen xaj maalik ni ci la yónneelu ni dañ ko war Ousseynou seen xaj maalik asan xam nañ dañ ko posone waaye nanguwul wax ne ko posone wa yaktumu man aataahu summan li sirrihi li tax maxaafata saalik wal karim sabuur moom Siraj Maane nee na nëbbu ko posone kan la ko nëbb mu ni mu ni mu ni xaritam ba ngir lan mu ni ngir ragal fayantoo Siraj Maane ni ku tedd day mën a muñ muñ ak muutale lu benn nga ñaan nit mu la yor ba nga muñ kooku muñoo topp ci ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon kooku muñoo da ngaa muutale nga ñaan ko mun ma yow war nga pare kooku da muñ kon muñ ak muutale lu benn rasul moom sëy moom sëy Mahamad Mansour borom ñaari kaare yi bàyyi bàyyi xalif bi ni wa zeynul fata baada ma tuqa wa ilmun wa islahun bihi yasduru waaw waaw waaw c'est ni muñ na alaaji Mansour ayaa saaxi sabran wal karimu sabuur sa yaxkumu maa bayna ayaa saaxi yow sama sabran del muñ ayaa saaxi sabran wal karimu ku mën a tedd ku tedd dëgg dëgg dëgg day muñ waaw ñu lay saaga nga noppi rek ñu lay tëm dëmm nga noppi rek lay tëm nooxoor nga noppi lu ne ñu wax la ko ci lu bon nga noppi rek nga noppi rek bàyyi yàlla waaw mu ni yàlla xam ne nii àtte xam ne li li ñu upp ñun yàlla ñun ñun dañuy dañu di kumb mais yàlla rek moo di mu ni yàlla xam ne lépp sa yaxkumu maa bayna ibaad xam ne yàlla xam ne xale ne li ne ci biir doomu aadama li ñuy nëbb ñun ñëpp kon ku tedd da ngay muñ waaw waaw fasta'iinu bi sabri doo gi indi wasalaat digal naa leen ci ngeen muñ sama siraaj nii seen naa Ousseynou dafa muñ mën a muñ a tax mën a muñ boobu moo tax waxu ko Cheikh ba ki nga xam ne mooy Ousseynou ndax su ko waxoon fayantoo day am waaw jaxlatu rey ko yamu ca ñu ni ko rey na asan nan jaar ci Ousseynou woo ko ni ko defar nañu jumaa kaay nga julli juuti ko mu bañ ñu bind ko moo tax saay-saay bu mën a bind lettre moytul ma ko waaw sama sëriñ daal wax naan ma moytul ma kilifa gu laminam ñaaw kooku lu mu wax la kaw waaw borom daraja bu dul wax dëgg mu ne moytul ma boroom daraja bu dul wax dëgg waaw fu mu waxee ñépp ni dëgg la fekk na daara daara daara du ci dëgg waaye lu ëpp ci nit ñi daañ ko gëm waaw ñu jël Ousseynou ndax ko muy muy Karbala ñëpp lañ fa rey mu des ñaar benn xale bu ñoo Fatima bu ndaw ak Zeynab ñëpp lañu rey kon lislaam loolu mettit lu na ko sabab séragement ni tolman dama ko feetee dama koy mettit lu ndax lu mel ni direct rasulullah yi ñu rey leen ci kooku suma dee nit di jullit yaakaar naa war naa tal leneen lu di ko feete walla laaw di ko naqaru sam siragement la dafay naxaru waaye dañu digal ci jullit yi ñu woor ci parce que na xam ne na ci woor génne ci sarax ray bopp jirim sarax miskin jàng ci junni qul allahu ahad soo ko mënee junni qul asa bébé na bu ne ànd ak bismillahi rahmaani kon fa tabaarakallahu ñu bàyyi ci rek cooli nag ñun Sénégal déglu ñu bon ñi moo ñu gën a déglu ñu baax ñi li Seydou Maodo si doon wax naan Sénégal loo fi jiw mu sax waaye wallaay wax a dëgg coore bare ci réseaux sociaux yi daaw fekk ni yéen kii dafay jiitu rek xaw ma ku gànde xaw ma naan dafay xar kenn ku ne di ko commentaire kenn ku ne may ko buzz waaye mu jiitu fi am na ñu fi gën a doy waar ñoo xam ñoo fi jiitu ngeen mel ne yéen a buzz di leen déglu di yàq seen alal ci ñoom te Seydina Muhammad ne yowmal xiyam doo jéggi sirat lu dul yàlla laaj na la ñeent lu dul yàlla laaj na la ñii jël seeni connexion yi du ko def ci aada moom muy saaga ñuy xaxataay nag ñii jël seen connexion di déglu Pawlish ñii jël seen connexion di déglu Ouzin Keita ñii seen connexion di déglu kon yéen seen na nga xam ne du ngeen jéggi sirat mu ku dul waxu leen ni xaalis boobu la moo tax ngeen dépassé ko foofu waaw kon du moom moo ko fi jiitoo ñun ñoo bëggul lu baax ñun société Sénégal ñun ñoo bëgg lu bon ñun ñoo bëgg lu bon beaucoup léegi pour pour am xaalis Sénégal sax faaw nga mën a fen mën a dof doflu mën a wax wax ju bon ñun moo laa mën a invité ci plateau yi kon bu taxawee ni damay xaar géej Sénégal yëpp daf ko daf ko buzz waxtaanee ko ci télé yi ci rajo yi ci ci kër yi ci marché yi kon yéen a ko may. te bu ëllëgee dina génne waat beneen xaaraat leen beneen a ngi ñëw ndax xam na ni lii ngeen bëgg bëggu leen lu baax xam na ni yéen Sénégal yi bëggu leen lu baax lu bon ngeen bëgg ku mën a jël sa dix cinq mille francs wala sa mille francs def ko ci aadama muy saaga doomu aadama ngay xataay muy xawi ay sutura doomu aadama nga ciy kontaan di ci reetaan te bu doonoon sa wuyu jur doo te kenn matul nag yàlla dafa bari sutura de ay waay dañuy suturaalante jàmm kenn ku ne xam nga sa bopp te kenn ku ne bu yàlla génne woon li nga def dootoo dox ci mbedd mi kon bu ñuy wax ci nit ki lu bon donte da ko def yàlla ne donte fekk boo ko muy yàlla sax mu génne di ko wax ku suturaalul jaam yombal xelam du mën a suturaal kon nañuy jël suñu alal di ko ci lu yàlla gërëm yenn sa saa ne yàlla dana sa ndaw ci lan nga ko dépensé sa wér gu yaram ci nan nga ko dépensé sa am am nan nga def ba am ko bi nga ko amee fan nga ko dugal kon nañuy xool man nañ ko am mën am ci bu dagal mais fi ñu koy dugal nañ ko xool kon ñoo ngi jégalu ñëpp di baalaas ko di ñaanal ñëpp jàmm mi borom jàmm ko mu jàmmal nga jàmm yàlla ñaari jàmmal bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa lu ñu daaneel nag fa tabarakallahu ngeen ne seen émission bu mag bi di al ilm wa taalim fii ci Salam Vision ànd ak Oustaz Ibrahima Diarra di ñaanal suñu sëriñ ba Babacar Kounta yam na yàlla guddal faram di nuyu fa tabarakallahu sëriñ Babacar Sall di doom ci maam Mbacké Sy di doom ci maam Serigne Babacar Sy waaye doom ci Seydi Hadj Malick Sy di nuyu maam Ousmane Sy Dabakh di ko ñaan yàlla yàlla guddal faram di nuyu sama Serigne Serigne Moustapha Sy responsable muqtafina fi asal abay wal ashdad du ma fàtte sama bopp moom kuy waaye du ma fàtte fa tabarakallahu imam Guèye imam Dramé taan Maawa Cissé taan Oumy Dione waaye du ma fàtte tabarakallahu taan Penda Seydi ma fàtte Umpaañ Daba di ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal faram yéen yàlla gën di nuyu sama yaay bu baax jooju fa barakallahu bëgg ma lool yéen ma lool wax dëgg yàlla bët bët bi may xoolee Koné Ndiaye yàlla muy sama pamphane Koné di ko yàlla yàlla gën a guddal fanam yàlla yàlla tas yaakaar yi yàlla yàlla gën a bëggal sa fan yàlla nga ba sa doom bi dina yóbbu màkkatal mu karam dina ay ay loo màkkatal mu karam bu kii yóbboo ñëw keneen si des yóbbu yàlla na ko yàlla na ko yàlla def bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du nuyu waa mujahidina fi sabilillah waa muxlisiina wal muxlisaat duma fàtte fa tabarakallahu sabula baax duma fàtte jeunesse tijaan waaye duma fàtte nag moo ko fii ne fii asar abaya wal ajdaari di nuyu fay Moussa Diarra yëpp loxo Thierno Diarra di nuyu Assane Diarra ak mbooleem Papa Soumaré Pape Soumaré le grand politicien nuyu naa ñëpp ziare ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa